yaakaar naa Tijaan Aysa Tijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma te ëllëg bul ma seetaan Cheikh Tijaan nga fóot ma nga fóot ma laabal ma laabal ma billil ma xëndëg la àggale ma wax leen nga fóot ma nga fóot ma laabal ma laabal ma billil ma dëgg la tijaan nga ma nga fóot ma laabal ma billil ma àggale ma muy fiir bañ daje li may tilim tilim yaakaar naa tijaan ay sa tijaan sarax ma jàpp ma ma te jàppale ma te ëllëg bul ma seetaan Cheikh Tidiane nga fóot ma ma laabal nu fóot ma nga fóot ma laabal ma laabal ma billil ma dëgg la akale ma nu fóot Élégance, éloquence, Sénégal, émergence, c'est le choix du Sénégal. Hey, one more doing back. What the hell doing back? Kuti kama duba duba. duba. duba. duba. duba.

Baligin na no. Jabum giyam khaluti pantire. Oh, oh. Assalamualaikum. Allez, allez. dafa am nag ay kilifa yu fi nekk yoo xam ne mënu ma yóbbu fii te du ma leen booleel lii moom maa leen yëkkati leen tax na loolu li ñu xam mooy boo ñëwee ci dëkk ñi nga xam ne ñoo fay kilifa dama leen di sargal yëkkati leen wane leen

Monsieur le ministre d'État, merci d'accepter de nous accompagner. Merci de vous accompagner. Je salue mon ami et frère première Assemblée.

J'ai demandé au président Macky de me de confirmer Benoît. Benoît, je pense sur vous. Tu me regardes le président de Je vais remercie tous. Parce que nous, nous sommes la famille.

la déclaration de patrimoine est obligatoire loolu mu bok jéego yi nga xamné ne def nañ ko ci walu euh, patrimoine Xeyna bo né nga état des lieux dina am est-ce que yow tay bo doon def sa état des lieux euh, lan ngay wax sénégalais yi euh, gannaaw ciow li nga xamné ne koy yëkëti autour de votre patrimoine autour de vos richesses xam nga euh, am na ci yoo xam ni nit man maa ngi sant yàlla d'abord mooy euh, bi ma duggee ci administration fiscale euh, condition yi ñu fa duggee ñun ñëpp ñoo ko bokk duggandoo c'est un concours que tu fais Dieu a fait quand même que samay kilifa ràññewoon nañ ma ci liggéey bi et que impôt boo am nañu ba tey ji xëy na sax yenn changement yi maa ko fa andi

loolu loolu am na bi ma jógee impôt aussi ministère des finances laa jëm ministre des finances nag dëgg neex yàlla dina am nag looy am ministre des finances te nekk naa ko juróom benn at. salaire ministre des finances ñaata la. salaire yeeg émoluments indemnité ça peut atteindre des sommes importantes. surtout comme, que moi j'ai été. président du conseil des ministres de l'UOMA aussi hein, sur deux ans donc 2017 euh, 2018 ou ou fin 2016 2017. J'ai été président du conseil des ministres de l'UMOA. Euh, les sommes, euh, euh, en termes de rémunération, euh,

le 24 mars bu soobee yàlla. dès le premier tour. yéen. man nag je suis l'avocate des femmes te ragaluma ko je suis une femme forte Comme jigéen ñi gëm seen bopp. dañ la jàppale waaye nga jàppale merci monsieur le maire. merci beaucoup président. merci les femmes et vive les femmes et vive Horékoutou. suñu Sénégal bii mënuñu ko jox nit yu ànd ak fitna suñu Sénégal bi. dañ koy jox nit nga xamee tey depuis bu ñu nee PSE mi ngi siy nekk di si liggéey ànd ak président Macky Sall. ñu ngi koy wax monsieur le maire bisimilah ñu ngi koy def sa kër ñu ñaan yàlla ñu dem yàlla ñu may ak ñu doom bu set wecc Amin. Bajisa yang Amal bak dan dari bisa nela. Thank you. fas bopp fas bi mooy bu baax bi. ñu ngi daw bu daj bëccëg ñu ngi def suñuy réunion di def suñu porte à porte kon monsieur le maire ñun amuñu lu lay lu di lay sant di la gërëm paa bi kontaan na bu baax si yow parce que li tax ay doom ñu ngi ñuy jox ñu ngi la si remercier di la si sant di la si gërëm bu baax a baax yéen ñoo xam ñu ngeen ko yàlla defal yàlla may lépp politiciens yi mom lay mel. dëgg la bi yëf ñangé ñàngee bi mu nee quartier bi kenn bul yëngatu kenn yëngatuwul. dëgg la loolu firndeel bu leer la kon bu taxawé dañ la ko sédel donc délégué bu ñu la gisee si kanam monsieur le maire. ñun ñi topp ci monsieur le maire suñu xel dina dal ci Tambacounda. ci lañ ko loolu waa. départ de commune de Tambacounda. Amadou Ba mom la jël comme mandataire mom la wul

les ministres DG en deuxième lieu nous honorable au conseil nos députés. troisième nous avons la responsable troisième rang dem troisième rang s'il vous plaît les hauts conseils les deuxième rang les DG etc., les ministres le premier rang s'il vous plaît respectez les loolu à tout. S'il vous plaît, sécurisez que le tabouna qui débat est mini Arrêtez-le, mini-quelle que encore une fois cette capacité de mobilisation pour président c'est le président de la prospérité partagée c'est le président des jeunes mais il dit aussi que c'est lui le président des Sénégalais et c'est important c'est important sa léeg-léeg ñu taxaw def taxaw seetlu. dëgg la en tout cas li ma leen mën a xamal mooy on a fait le tour a fi tëggee suba dina def par avion. wax ak Joola yi ak Socé yi ak Palanque yi mi yor ko ko ci yoon. il est fort je bi topp.